Monsieur le Président du Conseil d'administration de la LONASE, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Coordinateur, Monsieur le Directeur Sané, Mesdames, Messieurs les conseillers spéciaux, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les chefs de département, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers collègues et invités, chères sœurs, rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis cette année de célébrer ensemble dans une ambiance festive la journée internationale de la femme. après une de trois ans occasionnée par la survenue du Covid-19, l'amicale des femmes de la LONASE renoue avec la traditionnelle cérémonie où la femme, travailleuse, est sublimée à travers toute la planète. À l'entame de mes propos, une pieuse va à l'endroit de toutes nos sœurs arrachées à notre affection. prions le miséricordieux de les accueillir dans sa clémence infinie. Permettez-moi de rendre ici un vibrant hommage au présidente honoraire de notre organisation, Madame Fatou Ndiaye et Madame Ndero Diallo, qui ont eu successivement à diriger un autre amical. Depuis sa création, L'ACNO s'est évertué en soutenir toutes les femmes de notre entreprise, à soutenir les couches vulnérables de notre société. Elle a, dans le cadre de ses activités, apporté diverses aides aux compagnies d'ARA, reboisé les agences régionales, soutenu les détenus en milieu carcéral. aussi permis à certains de ses membres d'effectuer le parrainage au saint et apporter d'autres au plan Monsieur directeur général, si de telles réussites ont pu être atteintes, c'est en grande partie grâce à l'accompagnement constant de la direction générale. Tour à tour, vos prédécesseurs, Baylawa, Amadou Sambakan, Lat ont chacun durant leur passage à la tête de notre institution apporté une valeur ajoutée à notre organisation. En effet, de multiples subventions et divers accompagnements nous ont été octroyés, notamment une subvention annuelle de 7 millions, deux, puis trois titres de voyage à la Mecque, des tenues traditionnelles à chaque 8 mars Mais votre avènement, monsieur le directeur général Dora Baldé, sera à jamais gravé dans les annales de notre amicale. Comme vous aimez à le rappeler, Limon occupe une place de choix sur votre feuille de route. Rendant climat social apaisé, vous avez engagé des chantiers pour corriger les injustices. Vos actions quotidiennes épousent parfaitement le thème que nous avons retenu cette année, à savoir inversir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Ce thème doit être une priorité dans notre politique de développement, car la femme est non seulement au cœur de toutes les activités créatrices de revenus, mais sa qualité de mère en fait la gardienne de nos valeurs. Vous avez compris le message des femmes en général et celle de la LONASE en particulier. Trois mois après votre nomination, vous avez explosé le plafond des contributions de la direction générale pour le contre de l'AFLO. La subvention annuelle, vous l'avez revue à la hausse. Elle est passée de 7 à 10 millions. Les titres de voyage à la Mecque passent de 3 à 5. Vous avez contribué à hauteur de 5 millions à nos œuvres caricatives. Monsieur le directeur général, vous êtes assurément extrêmement généreux avec nous. Cette générosité, accompagnée d'un naturel, vous rend affable et très accessible. Elle traduit à nos yeux vos qualité humaines, mais surtout l'estime que vous portez à l'humain. Vous nous avez rendu le sourire et la tranquillité dont toute femme a besoin pour s'épanouir en milieu professionnel, mais aussi au niveau social. À l'entame des autres composantes de la LONASE, nous félicitons pour le recrutement d'une partie des contracteurs. Leur prise en charge médicale est celle à venir des retraités. Suivant la qui dit di que femme veut, Dieu veut. vous exprimons du haut de cette tribune toute notre gratitude. Nous prions en tant que sœurs et collaboratrices que Dieu vous accompagne. Et nous vous accompagnerons dans vos fonctions et au-delà. Soyez-en rassurés, monsieur le directeur général. Al Barka, fils de Fuladu. Nos remerciements vont aussi à vos loyaux collaborateurs, le président du conseil d'administration, monsieur Sireja, le secrétaire général, Mounoudou Gueye, allié fidèle de l'AFLO, au coordinateur Cheikh Tidiane Senghor, aux conseillers spéciaux directeurs conseillers chefs de département chefs de service et toutes les catégories de la LONASE vous nous permettez une mention spéciale à nos sœurs membres de la flore de votre staff les responsabilités qu'elles assurent avec compétence devraient vous amener monsieur le directeur à plus compter sur nos femmes et nous plaçant à la tête des directions agences services nous vous demandons d'accélérer le but. Au syndicat Amical et Dara, Aflo vous dit merci. Quant à vous, chers sœurs, avec qui partage l'amical, je vous remercie pour la confiance placée en ma modeste personne en m'élisant comme présidente. Nous avons tous ensemble œuvré à entretenir et à renforcer les idéaux de notre amical. Dans un cadre unitaire, tous les plans d'action ont été partagés, renforcés et validés. Nous avons réussi à relooker et élargir les bases de notre organisation. Aux membres du bureau et à tous, je réitère, je réitère votre engagement pris lors de la dernière Assemblée générale, à savoir transformer notre amicale en un cadre d'épanouissement, de solidarité en dedans et au dehors de la LONASE. C'est le sacerdoce qui doit tout nous animer. Je termine cette adresse en vous souhaitant à toutes une très belle fête. Saluer le coordinateur de la LONASE, M. Chertian Senghor, mais aussi mon ami et frère, euh, M. directeur général de l'ARM. Mais aussi euh, saluer la pertinence euh, de notre sœur, madame la présidente de l'amicale des femmes de l'ONAS discours bi neex na rafet na maa ngi jégalu nag ndax yaakaar naa xaw naa bouleverser un peu bi ndax yaakaar naa euh, fii c'est un rendez-vous entre le directeur général et les femmes de la LONASE mais comme que dafa nekk sama xarit ma def déplacement seet si ko mu ne ma dama war a rencontrer sama famille ma ne lu mu xat-xat-xat dinaa wàcc nuyu leen tatagal leen souhaiter leen une belle journée de la femme aujourd'hui ndax lu mel nii laa war a def fële ci Guinguinéo bi nga xam ne maa fa nekk président conseil départemental te fa laa jëm te bëgguma tardé moo tax monsieur le directeur général dinaa jégalu su ma waxee rek xam naa damay enchaîner dem mais lu mu gàtt gàtt nag dinaa gërëm l'ONAS pour ses actions sociales au bénéfice des populations yaakaar naa su 8 mars jotee ñu koy fêter dinañu rappeler chaque fois nous en tant que citoyens que ñu ngi seetaan télé ñu ngi gis l'ONAS di tabax ay maternité di tabax ay postes de santé au bénéfice des populations donc loolu su ma ñëwee fii devant les femmes je voudrais profiter de l'occasion au nom du gouvernement au nom du président Macky Sall et en mon nom propre en tant que citoyen féliciter l'ONAS ci liggéey boo nga xam ne mu ngi koy liggéey ci loolu léegi rek ñu ngi gis maa ngi gis euh, ay ambulance yoo xam ne l'ONAS moo ko def di ko jagleel dëkk yi te xam naa dëkk àll yi ñoo ciy ëpp te loolu aussi je pense que c'est au bénéfice des femmes te loolu lu am solo la donc félicitations à la aussi aux femmes de la LONASE ci seen taxawaay ci seen dëggu ci seen engagement derrière l'État du Sénégal ndax yaakaar naa bëriwuñu ay yëngu-yëngu yu ñuy dégg LONASE ci Sénégal bi nga xam ne les tensions sont si vives les syndicalismes si dynamiques c'est vrai am na fi mais je sais que vous le faites mais en toute responsabilité mosuñu dégg ay yëngu-yëngu yu métti am LONASE donc au nom du gouvernement au nom de l'État su ma ñëwee fii fekk fi femmes yi à travers elle dinaa féliciter LONASE si loolu mais nag su loolu weesoo nag dinaa leen gën a dénk votre directeur général Abdourahmane Doura Baldé soo gisee ma nekk ministre de la République nekk ministre de la jeunesse mu jar ma ma ñëw seet si ko fii pour encourager ko féliciter ko ba mu jaral ma ma ñëw toog fii di wax ak yéen c'est parce que dafa nekk jeune boo xam ne dama leen ko bëgg dénk ndax elle il fait la fierté de la jeunesse du Sénégal te soo xoolee ñun ak moom ñu bokk mbir mi ak jeune nu mu mel ak xëccoo yi naa am ci jeune nga gis ma fi man ma toog ak notre autre frère qui est là muy Ansou Sané c'est parce que da nga war a xam ne moom jeune bu am valeur la jeune bu baax la jeune bu président am yaakaar la mais jeune bu réew mi am yaakaar la moo tax ma bëgg waa LONASE comme ni ngeen ko defee ak yeneen directeurs yi ngeen jàppale ko comme seen doom comme seen jarbaat comme seen góor ngeen jàppale ko parce que xam naa ne il a beaucoup d'ambition pour la LONASE ngeen jàppale ko parce que xam nañu ne état bi am na yaakaar ci moom su ma nee état nag je parle de république je ne parle pas des personnes waxuma sax nag président Macky Sall mi nga xam ne moo ñu boole njaboote fi mu ko teg loolu aussi c'est important gëm naa ne su nekkee LONASE da ngeen ci gis seen bopp maa ngi lay gën a ñaax tamit yow yit nga jàppale jigéen ñi parce que ñii mérito nañ ko leen jàppale maa ngi xool seen visage yi chaque fois suñu tuddee sa tour dañ koy wax avec plaisir te yàggu fi cela nga commencé na bar yokkal affaire yi gars yi gën a seen bopp voilà le message maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm félicitations mon frère et bon fi toog ñëpp sama mag ci ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour di ko remercier ndaxte lépp lu mu nar a taxawee pour njabootu président mu koy taxaw maa ngi lay sant di la gërëm ci lépp li nga nekk di def ci conseil yi ñuy jox ci nit ñu taxawee ci fànn yëpp ak ni nga jiitee daw ñi biir Sénégal vraiment merci beaucoup di remercier également euh, le directeur général Ansoumana Sané, ARM, Agence de régulation des marché kii bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ma teeru biir université jàngal ñu syndicalisme mënoon football lool léegi nag football bi ci politique bi la koy def man leer na ma ni Ziguinchor am nga ci sa wàll te di nga def li war loolu dinaa ci ñëwaat ci kanam di sant di gërëm it l'administration, notamment le coordonnateur Cheikh Tidiane Senghor ci OFTM ak nit ñu nekk di jàppale ci liggéey bi di sant tamit di gërëm ki may tuddee le templier de la LONASE le secretaire général tey moo ñu représenté fële ci euh, Casablanca waaye di ko sant di ko gërëm ci ndimbal ak jàppale bi ñuy defal ci liggéey bi ñuy def di remercier l'ensemble des collaborateurs que ce soit les directeurs les directrices les conseillers de manière générale ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi collaborer biir LONASE waaye nag tey bésub jigéen ñii la donc li may njëkk ci samay kàddu mooy sant di gërëm jigéen ñi LONASE jiital ci seen présidente ki nga xamante ni jàpp naa ni moom du sonn ci xeexal leen parfois du ñu am rendez-vous waaye ci ascenseur bi la may koj ne ma jigéen ñi Lonase soxla nañ la balaa may wàcce réglé nañ li ñu war a réglé parce que elle pragmatique donc maa ngi koy encouragé di ko félicité ci taxawaay bi mu am waaye nag mu am keneen ki nga xamante ni c'est son mooy Zahra ñoom ñaar dañuy teg seen schéma jàpp ni yéeguma caméra yaa ngi ci biir damay gis lépp ñu waxtaan bi ñu waxtaan ba may génn rek ñu koj ma waaye loolu yëpp pour jàppale jigéen ñi revaloriser seen i statut nangul leen seen yenn revendication yi donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci lépp li ngeen di lekk di def bi may jël en tout cas service fii ci LONASE ne woon naa leen c'est l'humain qui sera au cœur de mon management mooy maanaam ci nit laay sukkandikoo pour mën a def liggéey biñ ma dënk ci lonaas te yaakaar naa ni bi ñu commencé ba tey actes yi ñuy posé mën na kaa firnde bu baax a baax a baax a baax a baax lu bëri bu mënee ne daa fekk jigéen ñi nangu lu bëri buñ ko amee ci éducation daa fekk jigéen ñi jàpp ci donc c' est le moment également de rendre hommage à ma chère épouse mais surtout à ma chère maman pour éducation bi pour ndimbal gi ak support bi nga xamante ni du li nit ñi faral di gis jigéen ñépp xam nañ ni ci lépp lu ñu jàpp wax ngeen ni ce que femme veut Dieu le veut mais man j'irai plus loin ce que femme veu Dieu le fait bu ñu nee ñun dañoo accès suñu management au cœur de l'humain le directeur général Ansou Sank mu ngi may naan quelle la place de l' de la femme au sein de l'humain ma ne ko c'est elle qui procrée donc bu ñu nee l'humain c'est la femme ce qui veut dire que ñun munuñu fi liggéey lu raw li nga xamante ni jigéen ñi mën nañ ko liggéey sii ci LONASE waaye ci seen kër wala ci biir Sénégal donc dañ leen di delloo njukkal seen thème principal c'est investir en faveur des femmes tey lañ leen jagleel waaye tous les jours dañ leen war a célébrer li ko waral mooy seen taxawaay mooy seen maalute mooy seen muñ mooy seen bëgg bi ngeen di bëgg ki ngeen di jàppale jigéen ku mu jàppale kuñ la sotal di nga gañe képp ku ñu jàppale di nga am ndam waaye ma naan leneen ci lépp li nga xamante ni jigéen mu ngi koy liggéey li ci ëpp mooy suñu éducation ñun te loolu li ngeen ciy def mooy résultat lii ngeen di gis ci comportement ci biti donc dama leen ciy ñaax ngeen gën ci investir yéen jigéen ñi l'éducation des enfants l'éducation également des maris l'éducation au niveau de vos espaces de travail na ngeen ci gën a góor góorgóorlu lii ngeen di wax ñu lañ koy defal suñu waru ngar la buñ ko deful dañ ko war a def buñ ko defee dañ ko nar a def ak yi ngeen am duma ci ñëwaat waaye li ngeen di am yi tant que ñu fi mën dara man ci loolu lay ñëwaat. wax ngeen par rapport à votre subvention wax ngeen par rapport à l' accompagnement bi ñu leen di defal ci titre de voyage yi. wax ngeen ci accompagnement yi ngeen di defal ci activité yi ngeen faral di def waaye am na yeneen yuy ñëw. ne woon naa commission paritaire nañu liggéey ci revalorisation statut des assistantes et secrétaires loolu dinañ ko topp ba mu yegg insha allah wax ngeen on a un plan quinquennal de résorption pour prestataire ak contractuel yi waaye li ngeen ci xamul commission bi ne ngeen paritaire la tudd bu ñuy recruter ce sera la parité dedans loolu je parle sous le contrôle de waa syndicat bi dama bëgg plan quinquennal bi ñu naan dañuy jàppale nit ñi ñi fi yàgg ñu def ko cinquante cinquante ak jigéen ñi loolu moom dinañ ko veiller duñ leen fàtte bu ma nee femme contractuelle ñëpp la vendeuses yi am na ñu nga xamante ni bëgg nañu ñu boole leen ñu ñëw dugg ci biir LONASE pour mën a am une retraite complémentaire bu baax xeex bu ñu nekk di xeex pour mën leen taxawal benn crèche ce sera une réalité dans les semaines à venir on l'avait annoncé fu mu nekk nii les études sont faites te dinañ leen ci associé pour ngeen bokk ci yéen waa Aflo pour gestion wu crèche yi dinañ xool nan lañ ñu mën a organiser pour ngeen mën cee bokk lii yëpp nag li ko waral lenn la mooy gis ngeen ni le chef de l'État monsieur le président Macky lépp lu mu def ci vision politique jigéen da cee am cër ba mu mat sëkk. ñun ndaw ñi nga xamante ni jën nañu tàbb ñu def ñu ci yenn institution yi mënuñu leneen lu dul wëyal liggéey boobu fësal ko ba pare am niñ ci taxawee donc tey laata ngeen ñuy sant ñun da ngeen ñuy santal le président Macky Sall ngeen gërëmal ñu ko parce que lépp lu mu war a liggéey ci réew mi ñëpp xam nañ ne mu ngi koy liggéey te liggéey na ko tey nag ñun dañ ko war a rendre hommage nan lañ ko mën a rendre hommage ci li ma jàpp ci wax ju gàtt mooy dax am kuñ ñu joxoñ mu ne ñu boo ñu jàppalee bu leen ma bëggee jàppale dëggantaan fexe leen ba kii ma leen joxoñ mu doon njiitum réew mooy le premier l'ancien premier ministre et candidat futur président de la république Amadou Ba dama jàpp ni jigéeni Sénégal boo leen xoolee trajectoire nit ki xool jikkoom xool nu mu dalee xam nga ni moo baax ci réew mi parce que suñu Sénégal bu yëngoo yenn yëngu yi gëm naa ni dinañ tal leneen lu dul organiser ay activités dinañ tal leneen lu dul wax ci li nga xamante ni mooy jëmal dëkk bi kanam te moom rek mën a perpétrer actuellement léegu Macky Sall parce que Macky Sall liggéey na réew mi loolu ku ko bëgg ak ku ko bañ da ko war a nangu def liggéey réew mi bu ñu mënee def lu ñuy def daa fekk ni mu ngi doon doxal réew mi donc dama leen di ñaax foog naa ni yàgg nañ toog di waxtaan ñun ak suñu responsabilité ñu ngi def lu ñu mën pour jàppale jigéen ñi waaye tey ñun ñoo leen di ñaan yéen it ñu ngi def lu ñu mën pour suñu candidat waaye yéen jigéen ñi boo leen ko nangoo bon leer na ma ni premier tour 9 heures du matin bu ñu gisee tendance yi xam affaire yi suñu jëm donc dama bëgg nit ñi xam ne Amadou Ba bi Macky Sall joxoon ce sera le candidat des femmes et des jeunes parce que sa politique de continuation axée sur l'amélioration li fi président def ce sera surtout pour ndaw ñi ce sera surtout pour jigéen yi ñu ñaax leen ci ñaan leen ci pour ñu mën a wëyal suñu liggéey ñu ngeen jàppale ñu ci wàllu boobu mënu ma woon am occasion ma nekk ci veyu campagne am cadre bu may waxtaanee samay jigéen ñi may liggéeyal fii biir LONASE te duma leen wax lu jëm ci lii nee nañ ma tamit am nañ fi ay njàmbaar ñi nekk biir LONASE di liggéey gëm naa ni yàgg ngeen jàppale ni ñi nekk en tout cas de manière très humble bu ñu yeggee ñuy bureau muy xeeñ neex muy set jigéen ñi koy defar la bi ñu amee possibilité xool ni ñu leen di jàppale ren y aura des pour ñii nga xamante ni ñooy personnel de technicien de surface mooy ñu defar suñu nit dinañ leen jàppale ci weeru koor gi waaye man li ñu fi doon def xaw ma lan la de waaye dinaa ko doubler bu ñu defuloon dara dinaa def donc ngeen xam ne ñun bu ñu toogee fu set mën a liggéeyee fu set jigéen yooyu la te pourtant elle passe parfois inaperçue donc les techniciens de surface les femmes yu yor nettoiement biir LONASE dinañ leen revaloriser bu ci yàlla àndee te xam ngeen mi fan yii di ñëw commission paritaire bi dina annoncer des augmentations de salaire bi ci yàlla àndee résultat résultat résultat yu LONASE doon def ñun dañ koo consolider ci en six sept mois du ma joxe chiffre de laata may catuwaa LONASE waaye jàpp leen résultat yi ñu defoon daaw ci bénéfice LONASE da koo triplé ci six mois ko waral nag mooy liggéey bu dëgër jigéen ñi yéen a waral. accéléré leen. non ñun bu ñu avancé dañuy accéléré may leen ma rek. waaw foofu ngeen may ma nag. ma ne. ma ne damay rendre nekk di liggéey LONASE parce que bi ñu ñëwee ba léegi. liñ fi fekk te baax dañ koo yokk di ko accélérer ñun yëmuñu ci avancé ne dañuy accélérer gis ngeen ni fekk nañ fi programme fekk nañ fi programme parce que tamit nit da ngay gore administration buñ fi remplacé liggéey buñ fi def lañ nekk di wëyal di ko yokk loolu tax ñu fekk ni benn programme immobilier du fi am nar a defal 37 villas yu rafet te mucc ayib defal 64 appartement ñu ne leen koy defar pour njaay ma ne leen waaw nangu naa waaye waa LONASE ñoo koy njëkkee ñi fiy liggéeyee la ñu bëgg képp ku fiy liggéey yàlla may ko possibilité balaa muy retraité am këram wala am appartement loolu nag programme bi nga xamante ne démarré na ba pare la dinañ leen wax modalité yi muy demee. ñu xool ni ñu leen ciy jàppale waaye nag buñ koy defit nañ fexe mu nekk de manière paritaire cinquante pour cent góor ñi cinquante pour cent femmes yi loolu tamit dama koy wax sous le contrôle ñi fay nekk ñun dinañ xool yan modalité la ñuy def pour jàppale leen laata ngeen di jël retraite LONASE mën a permettre liggéeykatam yi laata keneen ci biti di jënd biir LONASE ñu xool ni ñu leen di gunge nga ba mën a jënd donc di leen sant di leen gërëm du ma guddal wax ci ay annonce li ci des li ci kanam rawul bët yàlla yor lépp nag ñun suñu yéene la am bu ko yàlla tuddee dinañ ko mën a matali ci kaw Lonase fii bu yàlla defee neneen laata ñu fiy jógee tamit dinañ teg jéego yi nga xamante ni ku fi ñëw ci loolu lay continuer loolu di ma maa ngi leen di di leen gërëm di remercier le ministre di remercier l'association des femmes di remercier et di l'ensemble des travailleurs de la LONASE yeneen ñuy jàppale yeneen ñuy dimbali waaye nag yéen ñi nekk ci syndicat yi da ngeen war a xam ni avec l'équité territoriale liggéey bi ñu nekk di def di yokk ay bureau di créer ay agence dañuy recruter ba mu saf sàpp nag ci loolu ma yëgal la tant que LONASE mu ngi koy dinaa dem ci recrutement yi saf sàpp nag ma wax la